foofu noonu loolu amu fa woon yoon ay di wax ak sëriñu jàmm comme da ngaa dem ba bëgg tollool góor nag lépp lu la góor de wala loo wax góor mu war la koo fayu rek les conséquences parce que problème bi mooy di ko débattre loolu lañ ci mën xoolal problème bi mhm. mooy ñooñu noonu ñooñu noonu euh, dóor ko noonu mhm. ban ba mu leen laaj cinq cent millions mhm. tey bu nu waxoon ci sëriñam moom noonu lay réaliser maanaam day day bu mënu ko dóor day wax dina wax moom mais du dóore waaw doo ma bàyyi dóor moom moo mujj tout ça dóor surtout ngay dóor ji nag gis nga nit da ngay wax da ngay wax loo xamante ni bul xam nit da ngay wax rek danger. Mhm. waaye bul xam li liñ lay tontu. bul xam loo ci fekk yow waxal rek mais bul xam ne léegi nag. Ah, conséquences yi yëpp conséquences yi yëpp moom moo tax mu ñëw. moom moom moom waaye dóor gi nag fa lañ ko teg. fa lañ ko léegi waa léegi lan moo tax léegi lan moo tax muy wax ay sëriñu jàmbur. moom li wax nekkul sax sëriñu sëriñ Moustapha kese sëriñ ñëpp la wax. wallaahi mhm. sëriñ ñëpp la wax. Mhm. ñëpp la conseil man mii su ma ko jege su ma ko mënut a weñaar nopp bi dinaa ko wax loo xam ne day tàkkata du fay. parce que sëriñ ñëpp la wax ah. waaw <laughs> mais nag xamal lu tax du ma ko def. parce que fanu ne jotewu fa fanu ne. ñoom li ñu fa war a nekkee mooy ñu defar réew mi. mais parfois di wax dara sa sëriñ wala man sama sëriñ man ku wax dara sama sëriñ ku wax dara sama sëriñ mhm. dinaa la wax loo xam ne su ma la mënta door dinaa la wax loo xam ne yow dootoo sax. maanaam dinaa la waaye doo dóore doo dóore de. boo ma soree boo ma jegee ma walla ba nga mel ni dege nga naan ma ay eh, doo dóore. <laughs> li nga xam ne moo di actualité wu tey jii nag dañuy yegg ca fe nga xam ne rek moo di laay. ñun de man damaa foog ne dëkk bi est-ce que nekkul tamit àdduna day waaj a jeex. chaque balaa ngay ñëw ci loolu xanaa xamoo àdduna bi fi mu toll nii daa xaaj ñetti parti ah. benn bi mu ngi Qatar <laughs> benn bi mi ngi libi benn bi mi ngi fii di waaj a dëgg la ab ab waaye lekk ñu gën koo xam ci màgget parce que rek dem na ba am 62 ans xam nga ko doxale mm-hmm. amul doom nag mësta am doom mësta sëy ak kenn waaye la ñu xam ne rek mooy moom dafa amee impuissance sexuelle ci biir koñ ba nag am ab ndaw rek bu ay atam toll ci fukk ak ñeent maanaam 14 eh. ans mu daal di koy violé ba mu jëlee ca ëmb mm-hmm. te moom ci durant cursus am yëpp ku ko ne loo tax takkul jabar dafa naan carrément que dafa amee impuissance sexuelle te ñu ko wër ñëpp témoins yu ñu jël yëpp dañoo xamle ko woon ni mhm. dafa amee impuissance sexuelle mais ba ñu defee li nga xam ne moo di test bi yóbbu ko hôpital pour mu def érection xam nga li ma la wax. Mhm. Ah, pour mu amal ab élection dafa daal di doon góor dëggantaan te moom impuissance sexuelle la doon wax. xale bi nag daal dina koy violé ba daal ba mu daal ciy jëlee ëmb jamono ji nag ëmb baa ngi toll ci ñaari weer moom moom vie ba nag niyee na fee yëpp xam na leen ne daal du góor du góor fa la mën a yem. mais mun na mun ko ni mun mun na nekk munoon naa ñàkk ba ñu doon góor après mu dem ba ci biir après doon góor. Mm. mun na nekk de. <laughs> mën nañ koo faj du ko mun nañ ko non moom mun na doon faj moom parce que aussi li jaaxal waa koñ bi yëpp même seede bi lañ seede dañ ne kii musul nekk góor ci àddunaam mais loolu mën na nekk de loolu mën na nekk de joor peut être peut da doon faju yaa ngi comprendre après finalement yàlla xam na kenn xamul mbiru yàlla. dëgg la dina ko da doon testé far mu jàll. waaw jàll na nag mais moom bu doon testé nay dem ci moroom. 14 <laughs> ans non est ce toppee de mineur. viol sur un te viol mm. répétitif lañ ko toppee maanaam di violer di violer di violer. waaw léegi léegi léegi léegi léegi moom. moom xale bi moom. Mhm. moom loolu la da ko def lu bëri da ko kii. moom moom ci ci xale bi li mu wax ci tribunal bi mooy gannaaw bu mu ko daal di fekkee fa nga xam ne defarkatu ventilateur la da koy fekk place am. Ah. bu demee comme xale yi nga xam ne dañuy takk mag ñi rek. fu ñu dem fu mu dem mu fekk ko fa. buy ñëwee këram des mu koy may 2000 du ko may 3000 ci noonee na ñu am li nga xam ne mu di rapport sexuel te du benn yoon. te xale ba. Mhm. boo demee day 2000 moo tax xaalis. xaalis de day yàq rek waaye nag. ah doy na waar xaalis bee taxoon xëy na peut xale bi da koo taxoon nag loolu moo tax. mais moom moo doon abusé si xale si ko d'accord na koo takk. Mhm. mais sa doom da koy tàmmal loo xamante ne nii maanaam tey ñi nga xamante ni ñoo jur xale bi. Mhm. ñoo ko warul woon a tàmmal yenn yi wala buy jënd dara wala mu yor xaalis. ñu ko mhm. koy laaj fañ ko ko jëlee. mais mën nañu laaj fan la ko jëlee xale bi ne ko ci tonto diw laa ko jëlee. mën na ko wax que si moom la ko jëlee mais xamul lan def mais xamul peut-être jàpp que ne tonto diw xarit da koo def nijaayam wala da koo def maam maam su ma ans et 14 ans la. mais problème bi xamal loolu la gars yi c'est xam nga xam bi c'est que daam ñoo xamante ne nii tey xale yi dañuy egg foo xamante ne nii tey waruñu faa egg. Mm-hmm. sa doom mm-hmm. Mm-hmm. même bu fekkee tonton diw laa ko jële tamit. maanaam tey da nga koo war a war a war a wax loo xamante ne nii dina ni ah sama yaay mii kat li mu li mu ma bëggal xam naa fukki atak ak ñeent yaa mi ngi jàng j'espère léegi moom mi ngi jàng tey muy buy jaar fenn ñu koy jox xaalis tey xamoo kooku xel mi mu yor. Mhm. ak xamul xaalis bi mu lay jox li mu ci bëgg. léegi nag li mu ci bëggoon mi ngi nii nekk am 62 ans taxul nga bañ doon buuyu. am 10 ans taxul nga doon bañ que tamit waaw li li waa ji naan eh, eh, jinne dina jommal gune. Mhm. na koy jox 2000 mu yàgg xale bi am ay soxla mu ni ko jëndal ma li jënd mu ni ko ñëwal kër ga. ga léegi muy répété. mu koy répété di ñëw léegi saa bu ñëwee muy kii mais tamit xale bi ku am fukki at ak ñeent ban lay jox ay deux mille ak trois mille nga koy téye di lijjanti say problème bu la diw di def dara war nga koo mën a dénoncé ne pat ak moom xëy na tamit daa jàppoon gaam rek waaye nag gaam bi moom baaxul gaam bi moom jàpp génnul tay gaam gaam bi moom doxul dañuy dem ci wàllum tàggat yaram gannaaw nag ba mondial bi jàllee rek ñu delluwaat ci li nga xam ne moo di équipe nationale bu Sénégal gannaaw 2018 ñëwaat indiwaat ñu li nga xam ne moo di 2000 2022 bi ñu demaat ci coupe du monde moom mi lay nag ñi nga xam ne ñoo di fédération sénégalaise de football di kuréel gi nga xam ne ñoo ŋànk wàllum tàggat yaram fii ci Sénégal ñoom nag dañ daal na ko dem nañ fi aussi coupe du monde dem fi ba quart de finale pour la deux euh, demi euh, huitième de finale pour la deuxième fois gannaaw boo fi amee atub 2002 noonee la xam ne nag moom mi daal jot na ngeen mu abal leen ah mais xëy na xëy na kii xëy na ah xëy na gars yi ñoo ko choisiroon. Uh-huh. léegi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo dem ba doyal. dañ ko jox li mu fi am rek. xew-xew yi ayul sax ñaar xew rek la ñuy xalaat parce que moom nag amut. moom tamit moom moom moom maanaam Aliou Cissé vrai sénégalais la. Mm-hmm, mm-hmm. dem na mondial 2002. dëgg la dem na finale euh, coupe d' afrique 2002. jóge fa. dem dem de yor xale yi euh, nu mu tuddati. gunge leen gunge leen si ci si kii euh, non euh, yóbbu na leen tamit kii nu mu tuddati mm-hmm. ñoom sa Mané bi ñuy soog a fal yóbbu na leen jeux olympique mu jóge fa jëw yor équipe bu mag bi. yóbbu leen. Euh, euh, euh, de demi finale. coupe mhm. d'Afrique. yóbbu leen tamit coupe du monde deux mille deux mille deux mille deux mille dix-huit. Mhm. ñu dem ñu dem finale coupe d'Afrique deux mille dix-neuf perte ko. Mhm. mu ñëw de mille vingt deux wala de mille vingt et bi. mu ñëw gagné ko. yóbbawaat leen coupe du monde. dem toogee quart de finale. kii huitième de finale. et donc moom amatul lu muy prouver. léegi nag tey tey daal lenn daal la mën a def. mu investir dara defar ay école football wala dara. nekk ci yeneen i business parce que tamit. di liggéeyal boppam waaw di liggéeyal boppam mais mën ko bàyyi mu continuer rek parce que. waaw mais mën na c'est xam nga sénégalais bu ñu la dogalee tubay ngembali da lay xaar. dëgg la waaw ah, sénégalais moom doyal ci yow. dëgg la. am na keneen koo xamante ne nii teg nañ ko bët. teg nañ ko bët wala bëgg nañ fee. bëgg ko. mel ni moom rek wala ku ko ëpp. parce ah, ku mel ni Aliou Cissé moom. ah franchement ma la benn affaire Sénégal bi franchement Sénégal moom ku fi ñëw ñu critiqué la. même boo aayoon ba ba ba raw jinne it boo defee benn erreur bu ndaw ñu fàtte li nga defoon mhm. Aliou Cissé yàgg naa def jaloore. boo xoolee boo xoolee équipe équipe nationale bi mu ko jëlee senior bi. bi mu ko jëlee bu mag bi bi mu ko jëlee ba tey li mu recevoir ci ay défaites bariwul. mu nees na ko compter mhm, waaw. mais nag loolu yëpp moom li mu waroon a def la ci équipe bi te ba pare sénégalais la. Mhm. waaw te bëgg équipe bi moo taxoon mu def lii te amuñu lu luñ koy comme condamné ci dara. ndax li liñ doon ut des années avant ñuy juddoo. Mhm. suñuy maam di juddoo ñun ñëpp. indi na ko indi na coupe d'Afrique léegi nag bu fekkee gars yi danoo doyal ci moom. nan ko jox keneen ku ko gën. Uh-huh. parce que ku ko gën moom instant bii moom amu fi. ku ko gën. Ah, instant bi moom ah, man moom su ma su ma bëggoon ñu koy jox parce que cible yu moom daa bëgg Sénégal mhm. parce que moom boo xoolee am na sax kër fii ci Mbour mais moom daa bëgg Sénégal la mais man tey am na beneen entraîneur bi yoroon U U20 U21 u yi demoon coupe du monde mhm. muy beneen kërsa la kooku kooku ku aay la man sax. tey jii nii. waaw parce que man tey jii nii su ma su ma kii woon Daabo Daabo moom mooy entraîneur bi nga xamante nii moo yoroon moo yor AS AS Lébu kii Tëngéej Tëngéej FC kooku yor na équipe nationale bu ndaw bi mais kooku tamit am na xam-xam ci wàllu football. Mm. mais man bokk. tey ñu jox ko sa sa doomu réew man moo may gënal quoi waaw dërëm gi du génn gaal gi waaye tamit Hervé nekkul entraîneur boo xam ne tamit kii la entraîneur bu waaye la ku dóor Argentine moom mhm. jël Coupe d'Afrique final Coupe d'Afrique ci équipe boo xamante ne nii muy Zambie équipe boo xam ne mosul jël Coupe d'Afrique nga jëlal ko ko dem Maroc dem final def ko euh, nga jël ko nga jëlal ko Côte d'Ivoire waaw yooyu noonu tamit day nekk entre boo xam daa def ay jaloore. espéré ko ñu am ñu am nañu nañu nañu espéré rek. El Hadj Diouf ci bu fi ñëw. day ànd xam nga lu tax. Mm-hmm. parce que dafa am dafa am lu muy représenté. ci équipe te moom ko à chaque fois day dem. parce que daa bëgg booy bi amee entraîneur boo xamante ni c'est international mën noonu dem fu sori parce que yor nañu joueurs waaw. bu ñu jógee foofu lay dañuy dem fi nga xam ne rek moo di Kédougou gannaaw ñi ki démb rek yem ak mardi fukki fan ci weeru décembre atum ñoom ñi lay nag dañ leen a bëggoon jëlee ki seen benn dëkk village bu fa nekk ngir yóbbu leen ci beneen village te village bañ leen di yóbbu amul ndox amul courant ñoom nag ba pare joxuñu leen seen i de délogement ñoom ñi ñi nga xam ne rek la majeure partie yoo nekk ci dëkk boobu